ñu ñu dox ko ak euh, texte bi nga xam ne intellectuel sénégalais ak africain ñoom ñoo ko signé bu ñu comprendre revenir à la raison moom moo nekk ci ci boppu texte bi li ñu ci gis moom mooy euh, lu ñeel wàllu que bi dañu koy faxal di utiliser euh, ci le pouvoir exécutif est-ce que partagé nga idée boobu waaw gis nañu ni d'abord ma gërëm la sant la gis nañu ni lépp lu jëm ci yoon xaw na am jafe-jafe ci suñu réew ndax euh, xam nga gàllankoor bi ci ëpp solo mooy dañu war a xàjjale yoon ak nguur xajjale tamit nguur ak parlement parlement tamit ak yoon ci suñu réew nag defe naa xàjjale boobu motul ndax li tax motul moo di njiitu réew mi moom moo njiite tamit kuréel bi gën a mag ëmb yoon bi muy conseil supérieur de la magistrature looloo tax sax ñun ci suñu xalaat dañu xalaat ni magistrat bi gën a am grade te gën a yàgg ci grade bi gën a kowe moom moo war a jiite conseil supérieur de la magistrature loolu yaakaar nañu su amee ak yeneen i dogal ma jël par exemple li nga xam ne procureur général bi xam ngeen ni dossier yu bare yu ñëw ci moom mun na ci teg concam loolu ñu dindi ko mu bañati am lu mel noonu booleek tamit ci suñu réew dafa am leneen lu ci manqué mooy le parquet financier parquet financier boobu dafa am solo ndax muy ci nguur gi muy ci bérébu liggéeyukaay yi nga xam ni nit ñee ko moomal seen bopp mun na am ay jafe-jafe yu ñëw te war na am ay juge yu mun a jël ñoom seen bopp décider def ay enquête ba àggale poursuite yi yooyu dafa xaw a manqué ci suñu réew su fekkee yu yu ci gàttal rek yi ma jël yu mel noonu defe naa ni looloo tax ñooñu jël kàddu boobu parce que loolu nag du léegi rek la tàmbali suñuy wax euh, euh, séparation séparation su ma utiliser kàddu tubaab bi séparation justice ak exécutif problème bu yàgg la wante léegi dafa dafa tar bon defe naa ni suñu jëlee ay motuwaay yu mel noonu defe naa ni dana gën a jox juge bi kilifteefu boppam mu mun a doxal justice bi mu xool rekk digganteem ak yàlla pas digganteem ak ki ko fal alors euh, euh, ci euh, justice bi euh, l'actualité ces derniers temps mooy déjà euh, gis nañu le procès en diffamation entre Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko renvoyé en audience spéciale le 30 mars bi ñu jëm lan moo ci sa xalaat beneen bi également à un mel ne ne jege nga ko wala vos opinions mel ni lu xaw a jege lan mooy seen rapport yow Sonko et aussi sa xalaat ci procès bi ñu jëm waaw xam nga xalaat moom dafa nekk loo xam ni mun na xalaat yi jegeyantu loolu day am parce que ñun suñu xalaat ñu ngi ko wéer d'abord ci suñu aada yu baax yi ci suñu cosaan ci suñu diine yooyu ñaar suñ ko boolee am na loo xam ni dafa ñuy jox yoon bi ñuy jaar ak suñu xalaat bi ñuy jaar loolu mun na am ñu am ñu ci bokk ñu tekk ñu nit ci beneen gis-gis mooy xam-xam ndax yaakaar nañu ni réew ak lu mu munti doon xam-xam moo koy doxal bañ nañu ko sax bi ci àdduna si ñu nekk léegi dañuy wax koom-koom bi koom-koomu xam-xam la économie de la connaissance dootul am nga alal rek parce que réew mi am na ay alal yu nekk ci biir suuf si yu mel noonu jox na alal réew mi déedéet xam-xam mooy dowal alal ci biir réew mi suñu ñetteelu xalaat mooy xam-xam mooy jàmm parce que jàmm fu mu amul dara lu baax mënu fa jur loolu ñett yooyu mooy lii tëral suñu suñu yoon dégg la ci élection législative yi ñun jëloon jëloon nañu décision ci département bi ma nekk muy département Saint-Louis ñi ñi fa nekkoon député ñun bugg ñu ñu folu moo tax ñu seet ñi nga xam ni ñoo gënoon jëkku ngir daan leen ñu jàppale leen te yàlla may ñu ci ndam loolu décision mun naa wax ci jamono jooju la mais nekkul woon àndandoo ak leneen kenn waxtaanuñu ci benn parti waxtaanuñu ci tamit ak benn kilifa parti euh, Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ñëw na après loolu seet si ñu gërëm ñu sant ñu ci décision bi ñu jël boobu lañu ñu mus toogandoo waxtaan boobu la ñu mus a toogandoo li jiitu loolu musuñu toogandoo donte tase nañu assemblée nationale bu mu nekkee ministre enseignement supérieur euh, bu mu nekkee étudiant université Gaston Berger wóoruma ni xamoon naa ko wóoruma ni xamoon naa ko donc ay xalaat mun nañu tase léegi nag lii xew ci jamono ji ñun euh, ñaari kàddu la ñu ci am bu njëkk bi moo di li ñuy wax toujours ñun dañu bëgg ñu doxal yoon doxal yoon moo di réew mi dafa am lu ko ŋànk mooy constitution bi loolu ki ko war a gën a sàmm mooy président de la république euh, Haj Mansour suñu doyen yàlla na ko yàlla may wér ak gudd fan day fàttali toujours di wax gardien de la constitution loolu su ñu ko joxee kilifa réew mi dafa war a tax yi ci nekk war na ko aar te dafa am loo xam ni réew yépp dañu ci bàyyi xel mooy nit ki ci réew bi mu nekk war na am sañ-sañ dox fu ko neex bon ñun mënuñu nangu nit ñu tëj ko ci këram loolu mënuñu ko nangu parce que violation constitution bi la yeneen yi nag dox diggante diw ak diw te yoon war ko atti ñun yoon lañ koy bayal yooyu duñu ci duñu ci àddu moom universitaire nga wax sànq ci xeltukat yi bind benn bataaxal euh, indi ci seen jàngat ci tolluwaayu réew mi man dama lay interpeller par rapport aux intellectuels wala élite réew mi nga mhm. xam ne intellectuels ñoo ko incarné euh, boo gisee régime yi fiy jàll dañuy faral di génne ay texte dajaloo ku nekk signé mais ah day faral di tiire contre le régime léegi boo xoolee ñi bind fan yi ak ñi fi bindoon jamono yi fi président Wade nekkee rawatina ci bi ñuy mal coowal troisième mandat est-ce que duñu posé wu la question à savoir à quelle élite intellectuelle se fier au Sénégal suñu problème mu élite intellectuelle bi dafa nekk dañu aadawu loolu lu xaw a yàgg la parce que mun naa wax war na mot léegi peut-être lu tolloog ay fanweeri at que dañu xaw a saytu trop espace politique bi amoon na jamono suñu élite intellectuelle bi ñoo yore woon xalaat politique bi ñoo yore woon tamit parti politique yi parce que soo seetee muy parti yi jiitu UPS ay BDS BPS ak yu mel noonu muy parti Cheikh Anta Diop muy PAI parti africain de l'indépendance muy bi Majmoud Diop wala bi nga xam ni Seydou Sissoko mu jur PIT ak yeneen parti ak RND yeneen parti yu mel noonu yépp li ay yi ñoo ko sosoon cosaanee ko doxal ko wante dafa am jamono boo xam ne intellectuel yi dafa mel na dañu leen dañu leen génnee ñoom it ñu nangu ko espace politique bi loolu nag defe naa ni yàq na lu bare ci réew mi te war nañu man dama koy wax toujours muy intellectuel yi muy cadre yi muy technicien yi muy ingénieur yi muy képp koo xam ne yàlla may na la tuuti jàng su ma nee jàng nag damay wax ñi jàng tubaab ñi jàng arab ak ñi jàng ci suñu làkk parce que suñuy wax intellectuel souvent dañuy xool rek ñi jàng tubaab déedéet arabophone yi am nañu intellectuel ñi jàng ci suñu làkk am nañu intellectuel ak ñi jàng français defe naa yépp la ñu war a boole ñooñu waruñu sore espace politique bi dañ ci war a bokk ndax kat politique bi mooy dogal lii tax ëllëg ñu saafara euh, jafe-jafe yi am ci réew mi su fekkee nag ñi nga xam ne ñoo am xam-xam bokkuñu ci a ah, bon ñan ñoo cee yor ñi nga xam ni mun naa wax ni yoruñu xam-xam wala yoruñu jaar-jaar parce que xam-xam aussi day jóge ci jaar-jaar soo yorul xam-xam yoroo jaar-jaar ngay jiite ay nit ah soo dogalee te baaxul defe naa ni euh, lu ñu yaakaar la bon loolu tax ma ma ni intellectuel yi war nañu dellusi ci espace politique bi espace politique bi du euh, luy taqal nit déedéet euh, xam nga Jean-Paul Sartre dana wax se salir les mains tilimal sa loxo mooy laal yenn yoo xam ni intellectuel bi waru ko laal déedéet su ko intellectuel bi laalul rek moo di bàyyee na réew mi peut-être ñoo xam ni seen jaar-jaar ak seen xamxam mayu leen ñu yor cër yi ñu yore te looloo tax suñu réew yi du ñu avancé du ñu avancé xam nga soo jëlee réew mu mel na Corée du Sud 1960 seen am amu nit xaaj la woon ci am amu sénégalais 2021 seen am amu nit ñaar fukki yoon la ci am amu sénégalais raw nañu ñeent fukki yoon ci diir boobu lu ko waral ñoom dañu jiital jàng xam-xam gëstu ak innovation pour defar seen réew loolu nag ñun suñu ko defoon mun na am euh, romb nañu fii loolu tax may wax toujours ñiy jàng ak boroom xam-xam yi war nañu bokk ci ñiy dogal war nañu bokk ci ñiy war nañu bokk aussi ci ñiy xelal ñiy dogal. circonstances yi ñuy am indiwul benn seen crédibilité di ci nekk en parce que tout chaque fois rek moment bi circonstance bi day déterminer ñoom seen position euh, dans l' espace public. waaw crédibilité moom dëgg-dëgg su dee wax dëgg rek wàññeeku na trop wàññeeku na trop. parce que nit ki da ngay joxe sa xalaat ak sa kàddu di gàttandu li ware a ñëw parce que li ñuy yaakaaree ñu mel na ñun di jàng di xalaat moo di nga mun a wax ou nga xalaat lu nare ñëw ëllëg xam nga bàyyi ba mu ni këtt di jonn comme ni ñu koy waxee nga wax ci mun na wàññi sa doole wax bon loolu aussi rôlu université la ak universitaire xam nga yàlla dafa def ma jiite woon université Gaston Berger de Saint-Louis Gaston Berger dëgg la tubaab la métis la wante maamam doomu ndar la faatu Diagne mais moom tur bi Gaston Berger li mu indi ci xalaat mooy nan la ñuy xalaatee lu nar a ñëw parce que loolu la ñuy yaakaaree li ñuy wax intellectuel loolu lañ leen di yaakaaree te loolu war war nañu ko jéem war nañu tamit defe naa baaxawoo bañ rekk rek féete fenn loolu aussi day wàññi doole intellectuel c'est-à-dire que nguur gi rek mooy def lu bon keneen ki kenn du wax lu bon lu mu def intellectuel su ko defee rek dooleem day wàññeeku loolu aussi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax parce que diggante 2000 ak léegi gis nañu aussi yu xaw a mel noonu te leneen li moo di defe naa ni lu gën a wàññi aussi doole mooy ci nguur gi ci boppam amul intellectuel maanaam xam nga soo seetloo ci année yi parti socialiste jiiti woon fii amoon na ay intellectuel ci biir parti socialiste yu doon jongante ci xel ak xalaat ak intellectuel yi nekk ci kujje gi am na kenn tur bi moom a xaw a rëcc tuuti moo indi woon le compromis historique euh, te mu nekkoon sax directeur général bu Soleil amoon na yeneen intellectuel ci parti socialist ñu munoon taxaw di waxtaan xel ak xalaat ak yeneen intellectuel yu nekk opposition comme feu semu Pathé Guèye ak ñeneen loolu gisatoo ko pouvoir bi dafa dafa rey intelligent intellectuel bi nekk